amad dem mbokk yi mi ngi ci digg geew bi mo wone ginnaw Jackson mom lon jakar lol Jackson mi ngi mujjé daan nar sokas amad dem mi ngi mujjé daan brisirin arbitre sifflé na mbokk yi dimanche le 6 mars 2022 amad dem ak Jackson ñom ñaar ñepp ci victoire lañ jógee amad dem pied gauche la tek Jackson pied gauche la tek dañu jakarlo ñom ñaar. jàppante nañ eh Ahmed Deme Jackson laa ilaaha illallah eh Jackson jal na ko eh Jackson ko laa ilaaha illallah Jackson daan na Ahmed Deme de waaye lii gaaw de combat bi gaaw na de eh Jackson daan na Ahmed de combat bi gaaw de seet tët tët tët at bi dafa sifflé. Jackson daw direeku wutali ko Ahmed Dem dajak mom ñu songanté Jackson diko plaqué Ahmed Dem bañ rëbb jugaat ñom ñaar ñi jappo bala Ahmed Dem di xalaat Jackson continue action bi Ahmed Dem daal di daanu lamba ngi noonu lamba Jackson daan na Ahmed Dem Ahmed Dem da ngay dem war champion nga Jackson espoir la ci lamb ne ko lamb baye xel ndeysaan lamba gi noonu